amaat euh, mbégte encore une fois ñëw en face euh, de vous ngir euh, am ak yéen beneen daje bu am solo tey ñu am ki nga xamante ni moom moo di gan la koo xamante ni ñu bëri xam nañ ko ràññee nañ ko ci réew mi mu jot a am ay ndombal tànk yu takku yu am solo def na daanaka bu ñuy xool ci xayma def na lu mat fukki at ci ay ministères yu wuute yoo xamante ni tey jot na fa def ay jéego yu yu yu ñëpp ràññee. mu doon aussi ko xamanteni xamé nañ ko ragné nañ ko bu baax ci compagnonnage am ak ki di président Abdoulaye Wade mu doon kilifa doon ko xamanteni accompagné nako depuis 1974 ñu am euh, vraiment cheminement bu euh, cheminement politique bo xamanteni taxna peut-être euh, maître Wade wolu ko ba amana defon ko chef de cabinet bi nga xamanteni directeur de cabinet du moins bi nga xamanteni ni na ci wetu ki di président don <coughs> euh, donc koku Euh, du kenn ku dul ki nga xam ne moom moo euh, président wu euh, parti bi ñuy tuddee parti de l'espoir et de la modernité kooku donc doonul kenn ku dul l'ancien ministre d'État monsieur Habib Sy ñu lay nuyu Dakaractu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal ci invitation bi. maa ngi leen di nuyu bu baax Cheikh Sadibou di leen fay di yokk ci parti bi nag yaakaaru réew mi nga yokk ko ci ci wolof di nuyu Sénégal yépp di leen mastawu ci li xew ci jamono ji di ñaan yàlla na ci yàlla aar Sénégal ci mbas mi aar ci réew mi ñi nga xam ne dañu nekkoon ci diine lislaam ñàkk ci seen bakkan di ñaan yàlla na yàlla yërëm leen xare leen aljanna ñu mu téye tëral leen yàlla yàlla may leen wér ba ñu dellu seen yitte ñu mu dalagul yàll na yàlla musal leen ba mu umpul ñu umpale ko te yàlla nañ ci bokk ni yaa rabbi ci ñi nga xam ne waame mi walla mbënn mi nuñ ko mën a tuddee rek ci fan yi indi na ay loraange ci ñoom moo xam ñu nekk ci ndakaaru ci banlieue beeg ñi nekk ci biir Sénégal parce que yemul rek ci ndakaaru am na ñoo xam ne ñu bari ñu ngi ci réew mi mënuñoo fexe bañ dégg seen baat mais ni ñu amee métit ndakaaru mel na ne ñoom am nañ métit bu ñu toll. jërëjëf monsieur le ministre euh, vraiment euh, loolu am na solo d' plus que euh, xëy na sax am na ay détails yoo xamante ni xaw nañ ko omettre par rapport ak sa parcours politique waaye ñu xayma ni rek d' après peut être gëstu yu ñu def def nga lu mot fanweeri at ak ñett ci li nga xam moom moo di administration nga xam ko bu baax maîtriser ko. Eh, Donit, ko xamanteni euh ni eh, même su fekke peut-être nekkon nga fi eh, di and ak ki di président Abdoulaye Wade mu am lu bari lo xamanteni ni xam nga ko ci ni ñuy manam gérer administration euh amana li nga jotto a occupé yëpp ci parcours politique dafa melni sa xam-xam ci walu woowu moom moko gëna gën waaw euh, parce que man énarque la

jaar naa sax yeneen ministère parce que dem naa ma jógee ministère du commerce def naa affaire étrangère def naa fa lu mat euh, ñetti at nekkoon fa tim chef du bureau am expérience aussi au niveau international loolu may na ma tim mu jàppale mu bu baax sama liggéey ci ci politique ak li nga xam ne maa ngi ko doon jàppale président Abdoulaye Wade d'accord Euh, toujours dañuy descendi peut-être foofu euh, euh, quelques ben, quelques minutes euh, Tay buñu ñu gisee li nga xamanteni peut-être am téye woon nga ko ci nombre tank muy ministère bu peut-être muy ministère de l'hydraulique ci jamonoy peut-être gouvernement Macky Sall tay buñu ñu tay ni nga xamanteni ni lay doxalé ak ni mu doon doxalé ci jamono jojo

seqoon ko ak euh, service yi nga xam ne ñoo nekkoon ci ak man euh, ñu defoon ci ay jéego yu bëri parce que booy fàttaliku bi gënoon a tar ca jamono jooju mooy tali bi boobu autoroute amagul ñu tuddee ko laa rn kenn daaw fu mën a jaar ñu régler problème yooyu boo daa dem fii côté pont pont Sénégal 92 kenn daawoon mën a jàll yo itim président blaye wadou joxone ñu ci ay ndigal ñu liggey ko dal li top nak jëm banlieue bi ba mo andi wol ñu don def euh, ay bassin de rétention pour ndox mi nga xamne mi ngi don sonal askan mi nga xamne ci lañu bok ñu mën ko téye ci bassin yi mu baña sonal nit ñi ba mu jógee dal président blaye wadou ci ay bi waxtane ak ay techniciens ne nit ñi il faut que ñu génn leen ci ndox mi loolu moo indi plan jaxaay mais plan boobu tey euh, ak euh, démarche yooyu yëpp ngeen doon def ci jamono jooju ngir peut-être taxawu askan wi ci wàllu assainissement ak dëkkuwaay gu gu gu baax tey bu ngeen gisee tey li xew ci inondation yi euh, nan nga ko jàngatee nan nga est-ce que nekkuñu ci perpétuel maanaam continuité boo xamante ni Euh, ci li nga xam ne moo di naqaru askan wi seen détresse ak seen i euh, jafe-jafe est-ce que jàpp nga ni tey am na changement consistant waaw dafa jàpp ne président Macky Sall bu mu ñëwee hmm. bu fekkoon ne dafa wóyal euh, liggéey bi nga xam ne président Abdoulaye Wade mi ngi ko doon def coono bii di ci fekk parce que ba ñu xamee ne il faut que nit ñi ñu seppe leen ci ndox mi yóbbu leen def plan jaxaay bu toppoon loolu ba léegi lii du dal askan wi ndaxte li mu wax ne moom la ci bëgg a def muy juróom-ñaari téeméeri milliards ak juróom benn fukk ak lu topp mën naa def loo xam ne nii lu mel ne ay plan jaxaar ñu defee ko ay dëkk nit ñi dem fa ba tey lii nga xam ne moo leen dal du leen dal mais comme on dit mom dafa ñew ak benen xalaat bëgg ja def xaaliss bu bari tamul xaaliss bi bi te li mu wax. mais bi tamit buñu xolé ay appui financier la yo xamanteni ay bailleur ñokay ndek ay partenaire et cetera lu ci bari mu melni banque mondiale banque islamique. waaw xam nga ñooñu ci plan as pour nga def assainissement mhm. dañ lay laaj d'abord il faut nga def plan directeur man nekkoon ministre assainissement.

lenn ci milliards ci 700 et quelques milliards yooyu dugal ko ci terre pour wax ni voilà. waaw mu ne mu ne ci terre bi ci la bokk. mais bi ñuy def programme décennal fekk na terre juddoogul waxaguñ ko sax parce que terre ñi ko envoyé 2000 2015 deux euh, lañ ko ko annoncé. donc mooy wane ne escroquerie dañuy jéem a taf yëngal xamuñ sax nuñ koy doxalee te loolu ministre moo ko wax c'est très grave il faut que mu expliquer <laughs> xanaa en 2012 boo fekkoon ne woon. ñom amon nañ xalaat ba xam am plan d'assainissement même ci terre bi té lolou du deug rax ci doli comme dem nañ ba tollu fi man suma don président Macky Sall parce que assainissement euh, problème inondation liko ko moy mooy way ni ñu dëkkee ci souf ci moy premier problème mu war ko mu war ko régler euh ak nan la ñuy def ba bu ndox mi ñëwee ñu am plan d'urgence génne nit ñi ñaar bu dee ci dëkkuwaay bi ñu ñuy dëkkoo problème mu suuf fi mu nekk ci Sénégal toll na ci foo xam ne fii waratuñ koo béyee maire yi rek ñu di ko ñu di ko régler man maire laa woon xam naa li ci biir. waaw dañoo war fi mu nekk sos lu ñuy wax haute autorité de la terre.

ak la mairie, di liggéey tim direction des domaines bu ko defee fu nit war a ci Sénégal ñoom danañ am information boobu ñu xool ak service est-ce que faut faire des la est-ce que dañuy joxe suuf si aw na yoon wala awul d'accord loolu bu amul ci jëye rek la ñuy dëkk. d'accord mais est-ce que la proposition est bonne. mooy boo tollee fu mel nii ñu am lu mel mën nañ koo tuddee mbënd ñii soog a dabaatal def xaw ma plan orsec maa ngi dégg ministre de l'intérieur léegi mu ne mooy centraliser la ñuy jëndee pompe yi mooy xam nga fi mu ak amaguñ pompe yu doy xañ na yu màggat yu xamaat lañ yore kenn xamagut kañ la ñuy jënd pompe ba mën a génne nit ñi ci ndox mi d'autant plus que nee na moom moo koy centraliser gouverneur yeeg yooyu dootuñ ko toppatoo ma ne leen bu doon man bu ngeen bëggee mu gaaw bu ñu amee catastrophe naturelle yu mel nii dañuy déclarer état d'urgence ci zone yooyu banlieue bi boo déclarer état d'urgence foofu léegi mu may la nga mën a am di réquisitionner matériel yi nga xam ne société yi am ay pompe yooyu yore nañ ko ñu ñëw jàppale état pour ñu gaaw xëcc ndox mi mais suñ ko deful nekkaat fa ne dañuy jënd ay pompe xaw dañuy lancer marché appel d'urgence xaw procédure d'urgence la def nit ñi fa ñu ci euh, fi parce que au-delà de tout cela dafay nekk problème santé publique parce que am na ay maladies wax maladie hydrique ci ndox mi lay jógee mbas mi fi du ñëw ñom ñu nek fay yox yox yox yox yox yox yox yi bañ ag mois de décembre ndox ma dafa jógee yeneen feebar gëna ñëw loolu la wax né gouvernement bi fi mu nek liko waral nak moy Macky Sall wax naa ko bul ben du ñaar mm-hmm. ma ngi koy déglu ma ngi koy gis mais xamna né mëna tut mm-hmm. boko ko xam nga yéen ngi déglu bu baax dé ay conseil des ministres communiqué yi mm-hmm. moom amatul xalaat amatul xel danaan danaan dana déglu ma rek ma expliquer la déglu ma déglu ma expliqué déglu ma expliqué la mm-hmm. léegi daf naan ministre yi damay laaj xelal leen ma faites-moi des proposition loolu lay wax kooku président bu sonn moo koy def gouvernement du doxee noonu moom dafa mel ne xamatul sax lan mooy rôle chef de l'État mu comprenez mm-hmm. alors moo tax ma ne ko woon comme sonn nga fii mu nekk te 2004 2004 24 sori na buñ continuer ak moom fii mu nekk ci jëye la ñu jëm moo tax ma ne ko woon na na na écourter mandat am mhm. ce pas boo xam ne bii ñu dañuy def élection 2022 boole ko ak élection législative moom du ca bokk d'accord ñu amaat lu bees mën a làbbaliwaat pour Sénégal mën a taxaw yow proposition yooyu dañ ko tenir l'autre jour gis nañ ñu bëri euh, ŋàññi loolu parce que euh, am nañu ñoo xamante ne sax xëy na ci ay euh, ñooñam lañ jàpp ni yow peut da nga xëy na xëy na coxor moo la jàpp wala lu ni mel waaye tey euh, nga revenir encore une fois. mais man dama wëyal waxi Macky Sall rek moom moo taxoon fii mille 2012 ne daf ñuy day wàññi ci mandaam ñaari at lu ma ko waxoon dem ba Élysée wax ko àdduna yëpp dégg ko léegi comme fi mu nekk mi ngi jeexal mandat mooy dernier mandat te mënagul mënatul. ñaari at yoo nga xam ne dafa ñu koo diggoon te diggee bor la na ñu delloo su ñaari at man loolu nag laa wax waxuma leneen waxuma leneen bu ko defee mu nam ko waxee woon mu am mandat ñaari mandat yoo xam ne fukki at la Sénégal nekkaat ci jàmm mais proposition yi nga def léegi par rapport ak euh, inondation yeeg jafe-jafe askan wi est-ce que euh, essayé nga pour waxtaan ceeg moom pour jox ko ay solution ay xalaat ah wax dëgg yàlla déedéet nag man gisuma Macky Sall ma ko ci yenn laa koy waxee xam naa dana ma déglu. mais est-ce que jotoo jot jotul tey peut-être ak euh, kii yi nga am yëpp xalaat yi nga am yëpp contribution yeeg yooyu yëpp yu ni mel nga nga nga peut-être xool nan ngay jokkoo ak moom ci loolu ngir mu mën a peut-être euh, jël décision yi war tamit. xam nga li ñuy wax moom moom moo yore cëggal guyam. Mhm. boo gisee ñu wax dialogue bu amee yu mel nii. Mhm. président télé. Mhm. wala. askan wi sonn moom moo war a boo jiiteem réew yaa war a xel au moins nga ne ah opposition ne am nañ kuréel ña nga front de résistance nationale mënumaa gis ñëpp mais naa woo ki nga xam ne moo koy coordonné wax ko lan moo ci xalaatam bu ko defee moom danañu dajale nañu président kat nee na lii ni ci seen xalaat bu ko defee ñun ñu tënk suñu xalaat jox ko mu xool fekkee rafet na doy na ci moom mu def ko bu ko doyul mu teg ko fële mais man mhm. xam nga mënu jot président Macky Sall mënu maa sama téléphone di ko woo naan ko defal nii defal na nangam nangam mooy mm-hmm. mooy président de la république du Sénégal moom mooy jël initiative xool nu mu koy doxalee. Mm-hmm. voilà mais bu ñu ko laajee ñu jox ko ko. mais mais mais ak euh, yaa ngi doon wax léegi ci opposition bi ñu bëri jàpp nañ ni opposition bi am na ci ñenn ñoo xamante ni ñu ngi dem di seen moom ci suuf di waxtaan ak moom di rumbandaat ay mbir euh, monsieur le ministre Habib Sy j'espère que bokku ci

d'accord légui ñeneen ñi nga xamanteni peut-être ñu ngi koy gis ci suuf te japp ni ñom ci opposition bi lañ bokk comme yow. ah woruma nak woruma de. loolu bu mais sama sama mam daf ma ran wax bul gëm waane bul wéddi de nga joju wax. Mhm. bul gëm waane bul wéddi donc gëm nga ko. déedéet dama ne bul gëm. Mhm. waane bul wéddi donc yow écarté wo idée bobu man na am mais man limo man sama bop la xam man xam na ni bokuma ci. Mhm. defuma ko te du ma ko def inshallah ku melni ni Idrissa sek nit ñi xam ko eh, mu nek eh, ko xamanteni peut-être xeyna na cheminé noo ngeen bir PDS nga xam ko tamit bu baax eh, amna na ñuy rumalaan ni peut-être amna na lu muy nasa ko noo ak Macky Sall te yow nga xam ko xam peut-être façon. wax deug yalla nak wax deug yalla xamaluma dara fi mu nek mu wax dara ci Idrissa sek mo ci lu mu nek mhm. kon vraiment nafiq lay doon bu ma bëgge wax ci ay D'accord. accord ñu ñëw euh, ci beneen point euh, toujours ci ci politique mbiru chef de l'opposition, opposition nit ñi di ko waxtaanee lu bari daan euh, peut-être jàpp ni ki nga xamanteni mom moy tay chef de l'opposition warna am peut-être yenn privilège ak yenn peut-être prérogative ak yu ni mel ba ñu bari sax di ŋàññi ni peut-être amna lo xamanteni xeyna buñ ci dox lu bari rek xeyna peut-être Macky Sall amna lu mu nam ci opposition bi est-ce que yow lolu sa gis-gis la ci mbir mi. mbir moomu ni ma ko gisee ni ñu dañuy def pour man dañ ci am njuumte tuuti ndaxte dañ koy seppi dañ koy seppi ci li nga xam ne ak lu lu lu lu bëri lu mu bokk te boo ko seppee rek def def njuumte lu wax paquet la en quelque sorte ci ci tubaab moom dafa ànd ak li nga xam ne mooy processus élection électoral maanaam doxinu élection yu leer Andak fichier électoral manam bindu bi mu leer wóor ne ñi nga xamne ne ñoo nguur gi defuñ ci ay njuuj njaaj kooku ci la bok benen bi moy li nga xamne euh moy financement parti politique parce que mën lo wax chef de l'opposition statut de l'opposition

Nous avons gagné la contestation mënul am ñi nekk ci fichier bi bindu ñu woor né Macky Sall ak nitam defuñ ay ñublon ci biir parce que loolu moy élection yu avons ñu ah, parti politique yi day dañu wax né yeen dañ leen jox li financement manam jappalé pour que ñu bañ nous def ay corruption dem bitim réew di jël alal alal xamné ne ko ko si koo xam ne campagne électorale xam nañ xaalis bi ngi nu mu ak foo dugal mu ci bopp nit ñëpp bu ñu ah opposition de am na statut léegi nag élection nga xam ne na nañ financé nañ parti yi nga xam ne ñoo ci bokk yëpp amul benn contestation ñu chef de l'opposition kii la war doon ñu est-ce que ki nga xam

xaw ma nan lañ koy mën naa ne sax peut-être xëy na amaana da ngay ironiser wala peut-être ngay tooñ kii di Marème Faye Sall jàpp ni moom peut-être war na mën a diriger euh, maanaam euh, war nañ ko mën a jiital jël Macky Sall tegee ko ne la alors moom mooy njiitu réew mi loolu fan nga ko teg monsieur le ministre. déet damaa laaj rek waxuma de damaa laaj ndaxte damaa gis ne comme li ma wax ma Macky moom gis naa ne moom wax dëgg yàlla mënatul sonn na lool. fi mu nekk d'ailleurs mi ngi dem ma def euh, tournée économique pour dafa bëgg décompresser man xam naa luy président de la république hein, dafa a mënatul wax naa ko sànq dem xalaatutu day laaj nit ñi rek ndàngam ndàngam or état du doxee noonu ma gis tim ne ci gannaaw Macky Sall bar désert la gisuma koo xam ne kii taxaw na taxawaay boo xam ne bu jógee ëllëg si biir nit ñi dañ ko tel pour mu nekk président de la république comme seen parti bi bu fi Macky Sall nekkatul président de la république xam nga coalition bi moom yaakaar mu mën a wéy PS dana taxaw AFP de dana taxaw ku nekk am say ambition alors dama gis ne ki nga xam ne mooy soxna si président de la république day yëngu toujours li nga xam ne sax borom këram daf ko war a def moom daf koy def nit ñi topp ko et cetera ma ne waaw comme noonu la comme ñoom amatuñ pexe ndax ëllëg si biir mën am ñoom ñu jël Marème fay Sall def ko candidat damay laajte rek. Mhm. mais affirmé wu ma dara. nga ni moom Marème Faye Sall sax moo ko gën a actif ci jafe-jafe askan wi daal. ah loo loo lay niroog de may laajte rek nag laajte laajte rek laa def mais waxuma de. loolu mooy am tamit jàppoo ni yow peut-être xëy na euh, war nañ ko mën a dëggal. d'autant ah xaw ma xaw ma ci dara de bu dee militante nag ñoom ñoo xam man daal may laajte rek. Mhm. ni ma gisee muy yëngatu daal. Mhm. léegi-léegi mu mel lay taxaw taxawaayu président de la république ci place jëkkëram te comme lu nekk amoon na fi te ñun lu nekk jiiñ nañ na ko xam nga jiiñ nañ ñu fii ne ñun dañuy bëgg a def Abdoulaye dafa bëgg def pare Karim Wade euh, mu mu dono ko te dara doon ci woon dara doon ci woon dëgg man it damay laajte rek d'accord ci mbiru Karim Wade boobu dinañ ko jeexalee waaye balaa ñu fay yegg si euh, ci li nga wax léegi toujours Euh, par rapport ak euh, peut-être coono bi président di éprouvé jamono yi ba tax xëy na comme ni nga ko waxee mu dem di décompressé ak yu ni mel euh, da nga gis ni tey kon waxi troisième mandat bi comme nit ñi ñu ngi koy ñu ngi koy alimenté di di wax ci wax jooju souvent jàpp nga ni tamit waru ko mën a xalaat. ah bopp président nag moom <clears throat> xam nga man. ca ñu parce que bu loolu bokk na ci li gën a tax yéen ngeen juge fi. li gëna tax askan bi tay jël leen peut-être <coughs> leen indi ñeneen pour peut-être changer li nga xamanteni mom mo fi nekkon jamono jooju. xam nga man ni ñu man ma njëkk wax ci Sénégal bañ na pétrole maa def leen ndànk buñ fi génné pétrole xelum Macky Sall dana ko mu jéem a 3e mandat maa ko njëkk wax ci journal intelligence bo de xaw ma ban année encore ñu na ma oh, yow yow na ngay font etc. cetera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 waaw sam san san soppi na xelam parce que nag moom comme ci ci ayam la ñu ndax ne gis nañ pétrole ak gaz ak euh, entreprise yi ñëw et cetera doon na ko neex lool li nga xam ne moom lañ ciy jëlee koppar mu taxaw ne man la def ci investissement wane boppam et cetera mais loolu way wu rafet ko gën ak muccal askan wee ko gën am na loo xam ne lii dara jaru ko ci réew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 waaye ne buñ ne cam. waaye moom nag buñ fàtte ne am na lu fi jot def nag. waaw mais buñ koy fàtte. moo tax ma ne daf bay béy rëdd woowu li mu fi def waxuma ne deful dara de. waxuma ne deful dara man du ma du ma nii lis koy ñëw rek ne kii deful dara et cetera góorgóorlu nañ ci bëri mais mënoon nañoo dépassé fii xam ne moom la ñu nekk. gisuloo boo defee ndànk nga xool économie Sénégal dañuy wax mbas mi mais déjà 2019 amoon nañ problème. parce que li nga xamné mom la yakaron lay am ci croissance amuko won te di 2019 dara xam xewaloon mi ngi don tablé un peu plus de 6 finalement ñu dem ay 5 quelque waxon naa leen ko ci ñël belge ni ñu défé investissement public plan Sénégal émergent mënul dem et d'ailleurs, ailleurs mën ni mooy wane ne bu fekkone bu fekkone am nañ vision globale économie plan Sénégal émergent kay yooyu yëpp dañ ko ci warono bolé mais moy woné né bolé wuñ ko ci xamuñ nan lañ ko teurelé dañoo faaf rek plaqué def lu leen neex. d'accord hmm. donc troisième mandat bi euh, jarul dal mu koy xalaat parce que <coughs> japp ngeen ni yeen dina gëna a day taal réew mi dal comme ni ko ñu bari xalaatee. ah. mais japp ngeen ni mom yow ñott ngeen ni mom dina ko. min ci xel mi <laughs> parce que bon xam ñun ci état lañ nekkon hmm. bo hmm. gisé président nu mi doxalé da nga mëna a jëli yeen yo xamné min ci xelam. nga mën ko artu nak ci foofu la ñu toll. Mhm. d'accord euh, ñu jeexal ci daanaka avant dernier point bi tey gis nañ euh, ni nga meloon ak euh, président Abdoulaye Wade avant nga koy avant ngay ngay jóge foofu ñu gis ni aussi am nga lu bari peut-être loo xamante ni géré nga ko sous le magistère de Wade vraiment. ñu ràññee ràññee la ci bu baax nga nekkoon ci acteur bu bu bu ñëpp xamee tey ki nga xamante ni moom moo di euh, doomam di Karim wàdd euh, nekk euh, ca bitim réew ñu bëri di laam-laame ñëwam ak ñàkk a ñëwam ak avant 2024 et cetera et cetera mën nga ñëw un peu ci relation bi nga xamante ni seqoon nga ko ak kii di Abdoulaye wàdd ak doomam jooju di Karim xam nga Abdoulaye Wade moom man sama mooy sama bàyyi rawatina politique mooy sama maître à penser <laughs> li may def ci politique yëpp ci moom laa ko jànge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

jàpp jàppoon ni tey ñooñu war nañ mën a ko porter baa boobu ngir ñaar ñi ngay wax ñu gën leen a. Euh, dé déedéet bokk bokkuñu bokkuñu philosophie politique bokkuñu famille politique nest pa pas affaire da nga pour ñu porter ko pour ñu ñëw wala nga. pour ñu ñëw maanaam maanaam ñu jox leen seen gëdd. ah bon oui loo loo loolu de mënoon nañ cee taxaw ñoom it seen seen i tànk bon. Mhm. mais mhm. xaw ma lu tax man dugg ma ci man daal. nga jàngatee jamono ji euh, euh, taxawaayu. ñu mel ni tey par exemple Bougane Gueye Dany ak euh, Ousmane Sonko coow li bëri na torop seen diggante. waaw man def naa ne wax naa ko keroog ci ci benn journal ma ne c'est vrai opposition xëy na métti na mais bu ñu fexe ba nit ñi jéppi ñu nit ñi jéppi ñu mooy ñun ñuy saagante suñu biir di xasante suñu biir di doorante suñu biir mën nañoo bàq bañ a bokk gis-gis ci biir opposition. mais am na loo xam ne li ala kulli al ñun ñoo a bokk mu nekk doole joo xam ne ji bu ñu taxawee Macky Sall xelam du ko may mu ne damay jéem a def troisième mandat te loolu bénéfice su ñëpp la bénéfice su Sonko la bénéfice su Bougane la bénéfice su Idrissa Seck bénéfice Idriss kii la et cetera ana xanaa mooy mën nañ cee déggoo mais nekk suñu mbir di sànnante xeer daal Euh, su ma sañoon ñoom ñëpp ñu yëkkatiku waat tuuti loolu ñu teg ko ci suuf mel nañu meloon waaw mooy suñ njëriñ ñu ràññe woon la ci comité de comité de suivi force covid 19 bi mm-hmm. nga jékki-jékki am beneen doxalin lu waral loolu waa damaa gisoon rek nañ lay nañuy doxalee amuloon yoon mm-hmm. wax naa ko budul benn du ñaar moo tax ba mu ca dañ ca tollee te bëgguma ku ma taqal taqal opposition man ma raxas ci sama loxo bu mu seet wecc ba ma ca génnee tim waa opposition ànd nañoo man mais génn boobu ma génn sax def naa ne ñoom dafa leen dimbale bu baax parce que man dama nekk opposant ba ma génnee nag tax na ñoom it ñu gën a dëgëral seen taxawaay di gën a doxal gën leeral mbir yi ni nga xam ne moom lañ ko mënee kon alhamdulilah ñu ngi leen xaar ba ñu def seen rapport teg ko ci taabal ji wax ko askan wi ñu xam ñu mën a apprécier ndax seen liggéey baax na wala baaxul man daa maa leen di bay ñuy liggéey waaw mais dal mom lama ma ñu ñu ñël ben nga dal li tax ma génn dal mom man mako xam ak wa opposition te lool ak waxna ko askan bi ñu dégg ko. D'accord. accord ma ma jógee fa ko. nga nekk toujours ci espace politique bi euh am sa parti bo xamanteni tay euh, tey euh, mu ngi nekk parti bu actif parti de la modernité parti de l'espoir et de la modernité. Yakaru réew mi yaakaaru réew mi. Euh, perspective politique yi ak locale yi nga xamanteni mom lañu lañ dëgmal ak yoyu nan ngeen ci doxé jamono ji. waaw ci suñu ëllëgu politique ci kattanu yàlla suñu borom xam nga boo nekkee ministre ouvrier politique nga ouvrier nga politique président de la république mooy xalaat euh, naan defal leen ma lii defal leen ma lii defal leen ma lii léegi man damaa génn ci loolu damaa bëgg a nekk architecte politique architecte politique <laughs> mooy kii concevoir plan yi naan defal leen ma lii defal leen ma lii loolu leer na bu dee ci des nag ay local ak yooyu

président de la république buy jeexal ci local yi lañ koy commencer gis man maa ngi 2019 xam nga parce que gagné woon fépp man rek man Linguère m'a gagné won man toutes les communes 2019 toutes les 19 communes de Lingère, ñu gagné ñu Ndakaaru gagné ñu fépp booba euh, ñi ngi ñi booba ça, nga am nous, ñi ñi

jaajëfal nañ la bu baax monsieur le ministre vraiment euh, defe naa waxtaan nañ ci lu bari lu soxal actualité ak euh, lu soxal aussi un xëy na peut-être ci sa euh, jaar-jaar même su fekkee peut-être amuñu sax temps bu consistant peut-être pour waxtaan ci de manière beaucoup plus détaillée waaye vraiment ñu ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité ak maanaam dalal bi ñu dalal fii tey ci sa ci sa ci sa diwaan ñu ngi lay bàyyi juste nga tàggoog sunu mbokk internet yi. di nuyu mbokku Sénégal yëpp. di fedd baamtuwaat ñaan yi nga xam ne waxoon naa ko ci njëlbeen gi. di nuyu suñu mbokk yi nga xam ne noog ngi nekk ci diaspora bi. di leen mastawu. xam naa ne ñoom xamaguñ sama programme sax. daanaa koy wax bo mais def naa ne programme pour jaspora ci Sénégal maa ci gën le programme bis bu ma dégloo waaw. di leen nuyu ñoom di leen mastawu. non je pense que ministre des na ko mën a dégg. ah programme pour gën le ma ko dana jafe lool lool lool lool di ñaan yàlla yàlla dolli leen jàmm fu ñu nekk dolli leen xéewal mhm. di ñaan aussi ñu ngi jëm ci màggal yàlla nañ ci àgg ak jàmm yàlla aar jullit yépp mu nekk màggalu xéewal ak jàmm ak salaam nam ko daan doonee ci Sénégal nekk yokkute ci réew mi di félicité bu baax personnel médical bi ñi nga xam ne sonn nañ ci coronavirus bi xañ na ñun opposition ñi ngi ŋàññi bu baax governement bi mais wax dëgg yàlla nag góor góorgóorlu na ci nañu waxante dëgg góorlu góorlu na ci te ay résultat am na boo gisee loo xam ne lii sa adversaire la mu def ko mu baax nga ne ko waaw baax na naam doyut parce que ba léegi personnel médical ñu bëri amuñ matériel de protection bu doy ñu bëri dañu am coronavirus même bu ko nit ñi xamul ñu ñu ñaaxaat gouvernement bi rek pour fànn boobu laal lum mu ci mën a def gën koo yokk da ko def ah di wax aduna bi nak nañ deglu man waxna ko dama ko prévoir da bes dana ñew askan di di laaj ñi nga xamne ño nek ay professionnels de la santé ñu jité len parce que li moko yéni ñom ñoy héros yu bes yi <laughs> té les peuples dañuy soxla toujours héros voilà <laughs> d'accord accord merci beaucoup encore une fois di la jaajëfal bu baax di rafetlu aussi sa message toujours day nekk plaisir pour dakar Dakaractu ñëw waxtaan ak euh, ku melni yow vraiment ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax di leen jaajëfal yéen aussi suñu mbokk internet yi di leen jox dig dajee ci beneen numéro l'entretien fii ak ay bés jërëjëf